ulay anta bés bu bàyyee penda dem fuuta dina ñàkk boroom këram bii di candeela ba ilaa yow mi diin li tax ma wax ko tey laa leen leeral lépp lu nar a xew ci épisode 81 bii di ñëw tax penda dafa nara a nopp kii di candeela ñu bëri naan nopp lu am la am déet boo leen seetaanee video bi di ngeen a xam ne nopp lu am la te ñu mënoon nopp ñu ngi nopp ba léegi seetaan leen vidéo bi te ñëwaat ma wax leen lépp lu nar a xew ci épisode 81 bii di ñëw waxuma la sax. Mhm. nga bëgg nit mu am ay jafe-jafe. waaye nga xoo nga xool nit rek sopp ko. Mhm. nga bëgg mu bëgg la rek. Mhm. dama koy liggéey si ginaar bu góor mu neex la rek mu topp la comme xaj na muy toppee borom. non bi yéeme laa siy la ilaha na baatu baatu suñu borom bu tudd yaa jaameewu. baat boobu laay bind. am na ma ko def si ginaar gi boole ko ak moom. su ma ko defee une semaine laa la may. nga gis résultat. allahu akbar. ginaar gi moom noob rek laa def di noob rek. damaa nooba nooba noob ba ñëpp jàpp ne man noob rek laay liggéey. <laughs> wax nga dëgg de. ndax ñi may woo naan ma sëñ bi jox ma numéro Serigne Fallou xaw ma ñaata la ba ñi may waxee yow sax am nañ appel. jamono ji moo laaj loolu. Mm-hmm. su yi am nañ problème. Mm-hmm. relation yi am nañ mm-hmm. waaye man képp koo xamante si da ngaa bëgg niw da ngaa bëgg nga am yéene takk ko. wala nga nga nekk soxna. bëgg seen diggante gën a dëgër. Mm-hmm. tawar naa si te ki ma gën a soxla nag. Mm-hmm. mooy ki nga xamante ne nii daa wër. di noppalu mm-hmm. ba sonn. mën see am résultat. kooku bu ñëwee ci man xolam dina set. la ilaha illallah. preuve. wóolu li may def mooy tax dama naan la. dugalal alaaj boo gisee résultat nga mottali man ngaa gis sëriñ bu def loolu. mosuma koo gis wax dëgg yàlla nag man dama koy def ngir wóolu li may def. la ilaha illallah. am na ndaw soo xamante si nii. barki Demba Ndiaye damaa woo. Mhm. di ma sant. ndax lan juróomi weer ngi nii. Mhm. cinq mois yoo xamante si nii. jëkkëram mhm. da kaa war ginnaaw mu si uti ñaan. ñaan lu ne sëriñ bu ne dem na ca. la ilaha illallah. bi ñëwee ci man. bi mu ko defalee. damaa woo paas ma borom këram. la nag ma si sant yàlla. allahu akbar. te xam xam-xam bu ma yàlla may la. ma si dimbali doomu aadama jamono ji ku bëri wu ñu bëri daan sa kaw. dëgg la. te damay wax ni sëy yi nan leen ñu nopp. Mm-hmm. jigéen ñi nañu nopp seen i jëkkër. Mm-hmm. ngir ñu bëgg leen. Mm-hmm. góor ñi nañu nopp seen i soxna ngir ñu bëgg leen. ndax maanaam diggante yooyu li fi nekk dafa am dafa dafa bëri. muy lan. jafe-jafe yi fi nekk. muy lan. ba bañeeli ci biir. ñi ànd ñi ànd ñi di xeex. léeg-léeg say mbokk goro duñ la bëgg léeg-léeg say njëkk duñ bëgg léeg-léeg sax say mbokki jabar ñu la bëgg. ab sëy dañ koy nopp kër wala nga am jabar kenn ku ci nekk yor xaalis du jox moroom